suñu jigéen ñi tey ñoo ngi ñëw ci juróom-ñaareelu conseil bi muy waxak soxna si nekkoo ko uxrusi ala tasattur wa sitr sataraka allahu bil iman yow sama jigéen yow soxna si yow mii may déglu yow mi woote woone jullit nga dafa war ci yow ngay muur say yaram su fekkee ne jigéenu jullit nga ndax xam ngeen ni muuraay yàlla moo ko sant bépp jigéenu jullit waaye tàmbalee ko ci ay soxna yonent bi sallallahu alayhi wa ay doomam yu jigéen ak mbooleem ku gëm yàlla kon yow soxna si yëgal ni waajib la ci yow wareef la lu obligatoire la ci yow nga muuru waxuñu musóor de muuraay boo xam ni day jot romb ba say cusi ween sa baat du génn sa nopp du génn loolu nag boo nekkee ci kër gi nga xam ni yeneen góori jàmbur nekku fi bu la neexee mën nga bañ a muuru bu dee say dooma fi nekk wala say doom doomi rakk wala say doom doomi mag waaye booy génn kër gi sa borom nee na la li war mooy nga sol yére bu jot yére bu yëmbax waaye nga muur sa yaram soo tegee jilbaab mu gën a rafet soo deful jilbaab <clears throat> nga jël kaala bu yaatu bu mën a daj yaram bi tàmbalee ci sa bopp ba ci say suufu ween su wàccee ba ci say suufu tànk loolu moom moo gën solal yére jigéenu jullit ndax loolu moo lay fekk yow jullit bi boo saamoo ne dangay muur sa kanam loolu moom choix la waaye boo ko deful wareef bi daal mooy jigéenu jullit léppam awra la ba mu des xar kanam ak ñaari tënk kon yére bi ngay sol na nekk yére bu fat bu mu nekk borode boo am ay bën-bën bu mu nekk façon yi nga xam ni moom la génne léegi nga di ko sol te boo ko solee ku ko xool gis la jiitu ci sa biir yaram loolu baaxul ci yére baaxul ci sër te jigéeni jullit ku suturawu la ku yàlla suturaal la moo war a suturaal boppam looloo tax su ñu la mayee ngay sëyi dañu lay muur kon nag yow soxna si su fekkee ni bokk nga ci ñi ragal yàlla góor-góorlul ba beneen góor bu mu la xool bay am lu muy xemmem ci yow ci say gest ak ci say mbiri bopp kon ragalal yàlla taala wa tabaarak soxna si ragalal yàlla bul di sol yére yu centré ba say fes ak say anse di feeñ waaye bul sol jupe bu gàtt bul sol pantalon bu xat lu mel ni fii lu demee noonu amma bu dee da nga koo jiital teg ci leneen dara nekku ci kon bu mu nekk pantalon bu xat wala fiiso walla baa wala yu mel noonu waaye yow soxna si na nga sori di nuraleeg sa bopp tubaab yu jigéen yi di nuraleeg sa bopp noonu yàlla yi di nuraleeg sa bopp jigéen ñi nga xam ni jigéeni yéefar la waaye moytul di provoquer góor ñi nanga moytu bul yàq mukk-mukk sa kersa ndax kersa dafa cher te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne alxayaau la yati illa bi xayr alxayaau min al iman yonent bi nee na kersa du indil nit lu dul yiw waaye kersa ci ngëm yàlla la bokk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa kaana ashadd xayaan min al azra fi xidriha yonent bi moo ëppoon kersa jànq bu mësuta sëy yonent bee ko ëppoon kersa kon kersa googu nag yow soxna si góorgóorlul mu des ci yow waaye nga jëmbat ko ci say doom boo amee doom sa doom yu jigéen nga sàmm leen ci loolu waaye fexe leen a yar fexe ut ngëm yàlla say doom bu ñuy jàngi nekk ay élèves fexeel ba bu ñu sol yu xat bu ñu sol yu centré bu ñu sol yu seere waaye bu ñu sol lu gàtt moo xam ay zipp la ay mini zipp la wala ay baala ndax xalekat la muy jëf ca jamonoy ndaw moom lay jàpp ne bu màggee dagan na feeg terewuñ ko kon loolu bépp yaay da cee war a yar doomam waaye balaa ngay yar nit ci dara na fekk yawit nga mel noonu soxna si yëgal ni muuraay du aada du cosaan waaye diine yàlla la yàlla subhanahu wa def ko dénk yonent bi dénk ko ay soxnaam ak njabootam <coughs> waaye dénk ko jigéenu jullit ni <coughs> ngeen baal ma kon nag bépp jigéenu jullit bu fekkee ni bëgg naa bokk ci way ngëm yi na yëg ni borom baa ngi communiqué di wax ak moom ne maa kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaratu min amrihim yàlla ne yellul ñeel jullit bu gëm di góor wala jullit bu gëm di jigéen yellul ci moom yàlla digle muy am lu mu ciy tàmm walla yonent bi digle muy am lu mu ci taamu kon soxna si jàppal ni muuraay faratala ci yow ginnaaw ba nga amee fukki at ak ñett jëm kaw waratoo ko dindi boo dee génn su dee sa biir néeg ak biir kër gi loolu moom lu la neex nga sol lu la neex nga diwoo loolu daara nekku ci waaye boo génnee sàmmal lu mel noonu na nga yëg ni muuraay mii dañu la koy laaj boo taxawee yawmal qiyaam dañ la koy laaj de sa cër yi ngay génne danañ la ko laaj sa melokaan wi la yàlla may nga di ko bàkkoo foog ni yaa ko moom moomoo ko de kon teeyal defal ndànk dee dafay bette olof ne dee ngi daw di ñëw ngay daw di dem mu topp sa gannaaw foo mënti jëm soo muuroo bis dana ñëw ñu muur la soo muri ko bis dana ñëw ñu dindi la nga muree ko woon muuraat la ko yal na yàlla may ñu jàmm defal ñu ko defal ko ñépp wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh